doomu sama yaay. doomu borom bàmmeel yaay. kan moo la faj. doom borom bàmmeel bi. kan mooy doom borom bàmmeel bi. kenn bëggul mu sëñ Moustapha Sy. kan mooy kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy. fan la dëkk. tableau Tivaouane. tableau Tivaouane si fan. kan moo ko xam fii. man mii maa ko xam. Mhm. kenn mu sëñ Moustapha kooku ay xar baaxam wër na réew mi mhm. lu nekk da ngay faj ci réew mi te boole ceeg modeste fan la dëkk maa ko xam mën ci tawat mën ci poos boo bëggee dégg-dégg da lay seetal gisal la fajal la te doo buxante may yàlla la ah sama dama dama moom da ngeen ko ko wax eh taxawal dafa dama dama nag loolu dong la fi bàyyi eh, Euh, waxi mag dina day teen bàkk war mbaam eh dama ni cancer faj ah, ah, ah, jabet da koy faj ndoxum siiti da koy faj eh, da koy faj da koy faj bépp xeetu feebar bu nekk ci yaram da koy faj góor gu tëlee sax da koy faj man mii moom ma faj moom moo ca mën loo ca xamul mm-hmm. ni mu mënee ci paju yaram mm-hmm. noonu la mënee di paju poos maa la wax loolu eh yow comme moo la wax ni mënul dara ci dama dama moo ko wax moo la ko wax waaw Ndiaye waaw. fii kin bugg mi moo honnête. waaw yow foo nattu honnêteté dem rek weesu na ko. kan mooy gëm sëñ Moustapha Sy dara honnête. dama kaa moo kan. gis ngeen. lu amul seede neexul. Mm-hmm. Mm-hmm. man mii di wax ak yéen. commerçante laa waaye biñ ma booleek moom ba mu jëflanteeg man ba bàyyi. Mm-hmm. laa xam ne kii xam-xamam kenn du ko naataab. man mii damaa bëgg a tukki am problème kayit. kër numéro waaye. man mii xam naa numéro. ñaa jox. 77. waaw waaw. 502. 15 63 wala 76 300 78 17 jëlal jëlal bu dee cas agence la nag père cas urgence cas urgence maanaam soxla bu nit kët ni jël bu mënul xaar maa wax loolu jëlal jëlal 77 030 mhm. 48. 48 40. 40 dundoo ko yow lu ëpp fukki minute te tàggoowoo leen. man ku mel noonu laay wër. loo déggee vite fait. Mhm. si si si mooy vite fait. Mhm, yow mooy moom waaw. moom yéen bis lay faj. jëlal waaw mercredi. waaw jeudi samedi. li ko dalee 9h ba midi. dimanche moom ba su sàq feex la. Mhm. si lay faj jàngoro yëpp. maa la xool yeneen jours yi ma la wax da siy seet. Mhm. xool la xool sa biir. Mhm. xool sa biti mhm. wax la liy métti si yow. waaw waaw nga ñëw tàggat feebar. yaay. xaaral ma dama wax ka yaay Ngone. mu yóbbu fa bàyyi njawar. fi mu ne kay toogaay amatul demal te ñëw. eh, eh, eh, eh fi bàyyi duñ fi bàyyi ñoom publicité la. kenn bëggul mu sëñ Babacar. Ah, mu sëñ de da ngaa dam doo soppeeku ci yàlla. yàlla jërëjëf sant naa bu baax a baax a baax. كن بقول بشيخ سيد محمد المصطفى سي من تي توادي من تي بوشي يا بروم بروس دي بروم غلام يا تشماي وروس غلام غلام يا تشما سروس كن بقول asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu internautes yi ñuy suivre ci Ken Bougoul TV fu waay mën a nekk rek fekk naa la fa tàllal la samay yoxo di la ñaanalati jàmm dellusiwaat naa beneen yoon ngir euh, jàkkaarlook doomi boroom bàmmeel bi kenn Bougoul bu Cheikh Seyyid Mouhamadinil Moustapha Sy Al Maktoum ñu ngi fii nag ci saalu sàkk pexe ñu fas yéene waxtaane paj mi ak li mu làmboo waye xam ngeen ni kenn bëggul daf nu jaklel émission bu nu tuddé fatali fatali liko ko tax xam ngeen ko modi yi nga xam ni mo ndar kep pat mi ba lepp mën yewen muy ay règlement yu kenn bëggul bu serigne Moustapha ci tënk ngir ñepp man ci tënku serigne bi la tamay ñew ci tay bi ma nuyu la ngeen yok askan yu nuy seetaan. serigne ma ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal ba ci jamm ci kàttanu suma borom jërëjëf. jërëjëf mais itam maa ngi lay ñaanal jàmm ju sax dàkk tey damay njëkkee ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñi ne ci diaspora bi léeg-léeg dañuy faral di am ay jafe-jafe te sore gi moo ko waral ñoom bu ñu jëflanteeg yow ba seeni garab pare dafay jaar ci GP wala mu jaar ci DHL wala bokk ñu yónnee seen ndaw yu ko jël si léeg-léeg nag ci diggante boobu dafay am jafe-jafe ndax garab yi mën na réer euh, leneen mën na ci laxasu lu ci bokkul su boobaa sëriñ bi ndax remboursement dafay am wala bokk yaa jël en d' accord euh, baal ma nga jox ma carte du monde la waaw jox ma carte du monde la dèjà lii na la carton tepp nañ ko wala teppuñ ko boo ko teppee loo ci fekk enveloppe luñ ciy bind waaw ah. ah. ah. la jour bi sàkk tax enveloppe yi da won ne la garab bi ñu lay jox ci doomi borom bàmmeel bi la jugee ci adresse yu leer la jugee enveloppe lu ci nekk na fi jóg ñaari moo yëpp benn pourquoi pas bii amul na fi jóg man damay laaj rek nga tontu ma d'abord bi jiitu mooy man awma ma soxla ci yow malaat yow yaa am soxla mais man sama lépp leer nañ benn nee naa la ku mën a nekk même suma ma bokkee yow yaay Fatima boo amee soxla ñëw ci man danga may fay soo amul prix boo ma fay dama nga xooli keneen muy benn ba noppi bi ko ñaareel muy garantir wu ma la résultat ndax ci loxo yàlla la nekk man li ma la wax laay def li ma war la suma digganteeg suma boroom dinaa ko def muy ñaar garab da koy liggéey ba noppi posté ko mu dem parfois ñu ne réer na ci GP moo tax en général boo gisee garab yi bëri di dem diaspora du ma ko defee ci liquide dama koy liggéey ba noppi nandal ko ci coton sponsorisé ko ak gàncax côté ko pour mu jaar DHL la foofu xaj na mu ëpp sécurité parfois yow mi nga xam ne da ngay am sa mbokk boo xam ne day ñëw jël si ko pour yóbbulu ko DHL ñu bàyyi membre bu ne ci biir kër gi moom muy poste garab bi di ko yóbbu garab bi benn su réeree ci entre DHL garanti wumako ko bu fekke dang ko jox GP mu réer makoy garantie garanti garab bi so defé li si xaram nopi ñu la gennal sara sangam muy première mise en garde après bala jant lang dina la wo laaj la sang bi bal ma nga fàttali mu li sa soxla nga wax ma. ma bindaat li may bind yónnee waa urgence ñoom ñu wax ne la sëriñ nee na montant wu ndabu sanga bi ñaata temps la nga ne ah léegi sarax bi ma génne woon rek laaj boobu yow nit ki lay tontu mooy sarax bi yow yaa ko moom uma maa ko moom man bu may génne sarax ay millions lay génne sarax parce que man ak yow bokkuñu poids wu rawaxaan yow sa sarax ci dugub ak mboq la yam ak les gens sangam ak sangam man sama sarax bokkuñu ay budget nombre bopp la may laaj ne mu dundal leen kon maa ngi ñoo yem poids léegi sarax bi ngay génne kon kan moo ko moom benn yow yaa ko moom bu ma arrêté rapport ba noppi jox waa urgence ñoom danaa la ndabu sangat bi wala traitement bi wala intervention bi lii la sangat mooy li war a dem sa yaram intervention mooy yow jigéen bi am jafe-jafe ak sa borom kër. wala yow mi nga xam ne fi nekk tubaab la nit ku weex dala sonal di la gu ndoxitaal su boobaa intervention lay nekk intervention boobu noonu du jaar ci GP parfois man maay génn dem ci àll bi liggéey ko ci guddi gi parce que rek mu wàcce lay nekk léegi des fois su ma ba pare jox la nag garab bi dem réer ci GP man dama ko war a liggéeyaat jox la ko foofu doo fay mais amul benn garab buy agsi si yow bala nga kaa laal di nga génne sarax muy numéro un boo tollee ci numéro de di nga génne sarax mu neex la mu naqadi la mooy sama principe léegi nag parfois nit dalaan la comme génne wanaa sarax bu njëkk ba léegi garab yi ñëwaat nan laay génnee sarax man lu sama yoon yow yaa am soxla uman ma am soxla soo manee defal soo munul bàyyi ndax sa junni moroom mi ngi toog di la xaar kon ku aye que man li ma lay garantil mooy li ma warloo ak yow ci sama diggante suma borom dinaa ko matale ci kàttanu suma borom dafa suma yéene lekk benn dërëmu gor bu dugul ci man sax sama domaine yi ngay génni obligatoire da nga koy def léegi nag parfois nga jox nit ki garab mu dem partie un wala garabi action nga ne ko soxna wax ko ne ko da nga wara a génne sarax temps mu ne way loolu dafa cher quoi parce que yëru ma ko woon après ji di nga buma soxna envoyer document bi dama lay bolaké man duma sax réponse dal ci benen page dama lay bolaké man nekkuma ci débat ak yow dama lay bolaké ba nga def 1 mois ma soko a téléphone bi leer na wala sa ni ma baagi ma doxal bu dee amul question jërëjëf mu ngoog kon nag yéen ñi nga xam ni da ngeen ne bitim réew di faral di am jafe-jafe yooyu ak sax yow mi nga xam ni am koy bu rek nga bàyyi ci xel bu baax a baax ndax euh, kenn bëggul def na ci ay leeral yu am solo macha allah jërëjëf. sëriñ bi mu am ñeneen nag ñu nga xam ni ñoom itam euh, ñëw nañu sax euh, ba def consultation ba ñu xam wan yoon nga war a jaar ak ñoom waaye li ñu ngànnaayoo ngir ñu mën am rendez-vous ci dimanche bi matul su boobaa lan mooy pexe ndax da nga leen renvoyer ba dimanche bi di ñëw wala ñoom euh, en tout cas loñ ko mëna expliquer xam nga parfois ñaari dal nit moy ki ñëw def li ba noppi ñu jox la sarax yi te neko Dakar en distance nga jaaree batay akid ak ki def li ba noppi nekkon diaspora sarax yi ñu ne la du weesu ñetti fan urgence am na équipe boo xam ne loolu mooy seen liggéey pour def sarax dèjà yow sarax yi quatre lettres lay nekk man samay sarax aatena du àgg sax six wala cinq lettres quatre lettres du ma ko weesu muy ñeent yi la tiim xanaa tur arbaa yi lay jël la des sama domaine la man maa ko yéene sama bopp léegi soo génn waxee la na la génn la sarax yi nga bàyyi benn sarax fàtte ko defuloo ko ba mu def ñetti fan fekk man yi ma waroon def def naa ko ba noppi su ma la wooyee laaj leen ndax sarax yi mat na nga na ma benn laa fàtte woon li si xaar boobu da nga koy reprendre parce que du continuer ti léegi su boobaa dafay laaj nit ki ndax moom sarax yi mu jotoon joxe ñu génnal ko ba noppi ndax da koy perte loolu nit ki laaj mais soo ko perte nooy def sarax yi pour yow la wala pour man la yow wax na la sarax yi du weesu ñetti fan. numéro téléphone ñaata lettres lay nekk Sénégal sept lettres soo composé six lettres dana jàll soo composé neuf lettres loolu lay wax xaraf yi dafa ëpp kon li la wax da nga koy def léegi su fekkee nag moom jot naa génn yenn sarax ba noppi yow sa sarax am lu manqué ci yow ñetti fan yi jàll obligatoire da ngay reprendre at li saxaara sarax yooyu moom yoonam nekkutu ci moom ak ki ñëw dimanche ñu defal ko listixaara en distance ne la dimanche mën nga ñëw mais dimanche dana la booy ñëw minimum gàndaayal loo xam ne buñ la bindilee garab nga mën koo fay bu matee mooy liggéeyal su matul yow nit am nga droit ma defal ko ñetti parti mais loolu laa man léegi soo ñëwee nag dagg ba agsi dugg ci biir yor montant boo xam ne matul sax ñaareelu parti ñetteelu parti ñetteelu xaaj mais ñaar laa lay wax su boobaa mooy sëriñ bi document bi li ma jox matut matul ñetti ndab ne la boobaa yaay suwa ndax ma aj ko ba dimanche prochain ou ma aj ko 6 boo ne ma aj ko ba 6 mois dama naan ni document bi récupérer xaalis bi ne am jël document bi tey fii soo ne ma dama koy aj ba dimanche prochain dama naan document bi dénk naa ko ñii mu njaboot ko ca géej ga laaj kii rapport am ne document bi dimanche laa ko war a jot. léegi soba nit ki lay laaj ndax mom ticket d'entrée bi mu dagon dimanche dugg si ndax dañ ko koy remboursé yow nga ñew ndek consommer sa boisson consommer sa fruit consommer sa singom consommer sa raisin rang ba aksi dima laaj ndax sa ticket dana koy renvoyer wat ndax wala su ñewat dimanche damay daggaat ticket il faut ñu respecter nit ñi way quand même moo tax ñi laaj yëpp en général dama lay bloqué man du ma fa nekk di perte détail amuma temps boobu sax parce que bi ngay ñëw wax nañ li fi nekk soo ñëwee dagg ticket ba agsi bu la renvoyé sooy ñëwaat dimanche da ngay daggaat ticket même soo ànd ak fukki nit benn bu nekk lay dagg ticket même bu doon xale bu am 4 ans 5 ans 6 ans bu ñëwee lay dagg ticket man dama lii mooy samay règlement soo ko mënul toogal loolu walaar naññ la man xëccoo mooy mbooloo dëkkuma ci TikTok dëkkuma ci yamay ba ñu tudd résultat la lay garanti ci katunu suma borom ndax ñakuma jom te fek na gantax barke muhammad doxalal ñu dem mu ngok kon nak yeen ñi nga xamni da ngeen fi ñew faw rek ngeen gannaayo lu am solo ndax kat ken Bugul bu serigne mustapha si def na jàppandal yu am solo li nga wara joxe bu matul itam ndax jamono mo la japp xëy mën na la ko defal ñaar ba ñetti xaaj lolé jappandal la wax deug yalla jërëjëf sëriñ bi léeg-léeg fii dimanche bi dina am ay euh, jafe-jafe yu ñu fiy nemmeeku ndax léeg-léeg nit mën na indi malaat euh, moom mu yéegee malaat bi ci kaw toog ci suuf léeg-léeg itam malaat bi mën na sonn mën na indi yeneen i jafe-jafe wala mu am yeneen i bëgg-bëgg loolu est-ce que amul beneen pexe bu nga xam ni euh, gën na jàppandi. xamul ñun dafa am ñoo xam ne yàlla dafa ñu leen bindee maanaam baatu lii dafa cher xam ne loolu ak àdduna ñoo tëdd soo àndeek malaat ñu arrêté la ba noppi. nga ñëw dimanche benn mooy man su ma la joxee garab du man maa lay defal faram-fàcce tàggat naa beneen équipe bu lay defal faram-fàcce ñoom soo demee lu ñu lay wax dindil sa téléphone ngi def sa message vocal ñu enregistré la ñoom ñu enregistré la garab bi parfois nag yow nga ànd ak malade ñëw ne malade bi duggal yow nga toog ci biti bi dugg ndékki di xaar la leen yow nga toog ci léegi malay parfum mu daanu kiris wala parfum ma génn ak xal rab fir ko muna ñad ñadd daanu ci kaw nit ñi lan lay wax anakim kim ñu ne ñi ngi ci bitti loolu foo koy dugal yow nan ngay ànd ak malat mom munul japp parce que yàlla dafa bind ay nit ñoo xamne ñom bu ma xasse jakkaro ma nak afalena même bu naroon wax duñ waxati mais ki ngay ànd ak parfois lim lay jappale moy li nga fàtte bu fàtte li la ko mais yow nga ñew ne ko togal ci biti yow nga dugg su ma ñëwee du ma ci sonn su ma rap xool ci caméra surveillance gis ñu ne ci biti dama naan wax laajal ma diw ak diw ñan leen ànd ak ñu ne ma diw ma ne jox leen document ne renvoyé leen dem leen dimanche prochain delloo sa xaalis seet te yenn yi moom bu fekkee da ngay yomb da nga xool ñu dëkk ci tiktok bi nga yem ñoom quoi ñoom ngool la ñaqay lañ xam hmm? ak ut ay courtier ngemb man résultat laa pek ci kattanu suma borom bu dul damb damb lu ñëw ma seet ci kattanu yàlla nit mu mënu ci dara loolu yàlla dogal barki Muhammad te li ma invité ci arsenal mystique ci guddi yi boo tey tey Fatim yi bokkul de nu bokkul sax bokkul ma defar ba damay sax xaw a laf tuuti bàyyi mbëtt yu ndaw yu jóg noy noyyi du mais su ma jógee rek ñoo xam ne ku ne xam nga ci man sa bàyyi moo tax yi fi nekk yow malaat bi bëgg a faju faaw nga respecté ko parfois nit ñëw woon la ne la diw mooy sama papa wala diw mooy sama yaay quoi mais man yooyu damaa am foofu dafa maa ñor man yow santel noo mën a sant ne la ku nekk jur mais fii soo fi ñëwee sama daara la maa ko tuddee daara Mawlaaye a Seex Seydi Mouhamadou Moustapha ngërëmalee ko yaay Fatima ñu defal la ñaari salle te kaw salle bii di pour malade pour se occuper salle ba ca kaw muy Saal Mawlaay Seex Seydi Mahmoud ma nga fa tey buy taw ou muy xiin ou fi ngay nekk ngelaw du la laal poussière du ba baa nga ñibbi léegi wala Afrique ba mu daj Afrique laa waxuma Sénégal Afrique ba mu daj nga xool ban organisation ngay fekk kër kenn bëggul ci kër fajkat yi mënu sama kër waral Afrique ba mu daj laa waxuma la Sénégal de Afrique laa la ah? du hôpital du clinique du ma seen morom ci dara du jaay du bàkku mais yu bokkul bokkul am na loo xam su ba noppi mais da ngay fay bor bi nag boobu mënul fay bor bi dama la nga yem ti ñi yem ci tiktok yeeg xool ngol la njëkk xay sànni ma baagi ma doxal ci kàttanu sama borom jërëjëf mu ngoog internet yi ñuy suivre ci Ken bugul TV yéen a ngi jàkkaarloog doomi borom bàmmeel bi Ken bugul bu Serigne Moustapha Sy fii ci saalu sàkk pexe ma fàttali leen rek bés yi nga xam ni moom lay consulter mardi la mercredi jeudi ak samedi heure consultation yi nag dafa soppeeku ndax léegi 10h30 la ba midi numéro téléphone yooyu ngeen di seen ci suuf écran yi waxtu wu ngeen ci wootee rek di ngeen jot ay ndawam ñu teg leen ci yoon yu leer jërëjëf Serigne bi ñetti laaj yooyu day lañu bëggoon a leeral te leer Khanarik rek ma tëjee ko actualité actualité bi day dañ koy jagleel élection législative yi nga xam ni am na dimanche bi nu génn gis nañu doomi borom bi dem na joxe ji votam ànd ak njabootam lu nga xam ni bëriwul sax leader yu ko def moy ànd ak nga am ñépp ñu dem euh, voté ji voté nga ci allah waye ca ngoon nga dafa am ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ndax vote moom bu ca xëccoo amee ku ne di wax naan maa gañe jafe ngay bëgg judd euh, nan nga suñu boroom lépp ci loxoom la nekk dama waxoon ay weer ca gannaaw gis naa sax ay njaboot di koy def di koy def tiktok fan yi yëpp ten wax na nit ñi bu ñu am rëy chaque jamono waxuma sëriñ de yàlla tànn nitu yàlla mu supérieur lépp ci àdduna bi bu la neexee day am bu la naqaree day am moo waxoon nañ teg gannaaw ne leen mbir yi ñu ngi ci loxo Mawlaay a Seex Seydi Mouhamadou Moustapha dégg naa ca gannaaw gannaaw benn mag bu ma ci réservoir mun ma sa patron de dama ko déggoon bés mu wax ne ci benn waxtaan rawxaanu diw mi sama loxo ma ne ko waa léegi munuma ah loo ci xalaat dama ko dàq na ko jógal ba mu jóg ma bloqué ko na ko bu ñëw di sama kër ne ko man waxu Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha aw ma ci commentaire exécuté la tudd parce que loolu laa gëm ma ne ko bëri na loo xam ne lu ngeen yëgut bu rusul woon mag ñi yëngal na ko bu yàgg seen kaw waaye man parfois ma am loo yàlla dafa ma koy woon bopp na takk waaye ma ne ko du moroomi ñi fi nekk ma ne ko bi ma koy wax. man xam nga ragaluma pilim ragaluma mas, parce que ñi fi nekk buñ ma mënon dem dem nañ ma bu yàgg ndax luñ xam investir nañ ko ci man ngir ma noppi man ginaaru kenn nenuma ma waxon fi wat ci ginaaw ne mbiri ci loxom la nekk te yalla suñu borom dina rus nitu yalla ba kum loxo nga mars ma waxat ca ginaaw ne len yew mi dana yew rew mi moo tax am na fooy toll safara farata sax du nekk di campagne parce que yow li ngay xam xam nga ko ba noppi est-ce que seetlu nga benn mbir dama la wax ca gannaaw wa gannaaw gannaaw demal ca vidéo yi yàgg ya ni la Covid soldaar la mais est-ce que nit ñi def nañ lu tax yàlla yónni ko pour mu war a régler yenn règlement ak yenn ñu jàppee seen bopp ay buur te fàtte na yàlla mu leen bind. jël seen xeet di leen not jël seen population di leen not làq doom dóor doom yàlla war leen jox mise en garde ngeen ñu dellu ginnaaw mais ñu gëmm tax luur seen population di souffrir rek bésey ñëw yàlla jël responsabilité bi yëpp teg ci loxo nitu yàlla ndaw ñëpp sopp nitu yàlla boobu ndaw ñu demaat sob parke leen ku sell ki mbiri dajee nag mooy te la ngeen foogul woon dina ànd dox dajee yàlla mooy def scénario boobu noonu xaw ma dégg nga moo la déggloo ma ñi def sa conférence sa gannaaw ma kër jëmb bii sa gannaaw a gannaaw kër jëmb ba am na benn kilifa bu fa ñëwoon indi benn grand boobu joxe woon ko publiquement xam nga yéen ko fàtte woon fàttali woon ko ba pare teg ca ne Serigne Moustapha tinuma rek ci diw la ba nga xool vidéo yi amaat nañ fii muy première mise en garde am cortège bi génn fii njiitu réew mi otoom tàkk umu saxaar la woon ñu wàcce ko mu dugg ci jàkka pourquoi pas bi oto bi tàkk ak jàkka ji defuñ calcul bi moske bi néegu suñu borom la bi oto bi tàkkee fan lañ la dugal dañ laa récupérer dugal ci moske mu beneen mise en garde nga defaat keneen quelques jours ku la jege woon lool def benn audio il set a sept minutes et du ma tudd tur ba te mu xarañoon lool ci wàllu politique ba ñu naan ko li mu gént lan la ak li mu gis lan la fekk or ka yàlla moo ko woon lenn ci ay ferñeent yu war a ñëw rek pour ñu war a kile mais retour amut ma waxaat fii ne njiitu réew mu muy président Sall même bu amee yéenay liggéey mais entour bi ko wër maladie ñoo leen si bàyyi. transhumants yi wane nañ ko duñ la jox parce que nit buy wor yàlla du ko dooleel te transhumant workat la mais da nga war a laaj ndax transhumants yi politiciens yi dong la sëriñ si seen bokk laaj la bu ñu laaj taalibe bu jël sa bopp doomu daara jébbal ko sa bopp mais bu la buur di bugal du dégg du wax ci transhumant la ou bu dund gi chéré dundee gi nga kaas mais lu tax réewu Sénégal man boog li ma remarqué te bari na ñu ma koy laaj pouvoir bu fi ñëw mennam Serigne Moustapha Dang mooy génn un seul resté taxaw du ànd ak pouvoir dara parce que logique am du ko lu tax ku ñëw rangé wu ci ginnaaw pouvoir mais sauf moom seul wala ma dégg sama mbokk bi dama wax barki démb Ndiaye ndeysaan bu baax ni commandant mu ne ma man xam nga li ma jaaxal mu ne ma ji nga transiment yi dem yëpp yàlla xam ne mu ne ma kenn matul ci ngont ci mbooloo li nga réalité réalisé wuñ ko li nga taxaw taxawu duñ ko te amuluñ foofu lu benn njariñ te mu ne ma ñun nag day fekk bu ñu wax dañuy jàpp dañ laa faral mais sëriñ faralun la c'est-à-dire la fait que ma dégg baat ñu ne ma da ngay bàyyi faj moo waral ma ñëw fi pour ñaxtu meru wane ne d'accord si ak yow waaye waxtaanaat ak yow teg ci ne ma lan moo tax génnoo campagne ma ne ko lu may campagne doy parce que man ñi may wax xam naa fi may wax ak ñoom xam naa fi may jaar ak ñoom léegi yar naa ñoo xam ne bu ma leen soxlaa ba lañ ci teeram ñu dem rek la ko ci guerre non déclarée fa laay taxawee ak ñoom xaw ma dégg nga wala déggloo ma kon encore une bonne fois moom njiitu réew moom message bii ay na Souleymane ay na Abraha ak polom ya yàlla yabal ko fii tànn lii leen jël ay polom te moo doon day tojji kaaba màkk te ñoom ñoo amoon pouvoir ay na firawna xam nga firawna lu ko lu ko ko tardel ci carrière am wala li ci carrière la parce que xaamaan moo doon meilleur ameem doon mbëkk néegam teg firawna dem ba benn mu bëgg a dellu ginnaaw gëm suñu borom Haamaan wax ko ne ko Moussa mi yaa ko yar barki Demba Ndiaye ne ko xanaa xamoo ne mën na laa jox beneen système bu bees nga nekkat xale bu ndaw Haamaan moo njëkk a kere ñuulal ci àdduna ñuulal Firawna ba kawar gi ñuul kukk mu wax ko ne ko buur nga yàlla na nga comme ñëpp Haamaan del Firawna dellu ginnaaw mais bu duggoon a Haamaan Firawna kon dina dugg ci islam prof lim la bëgg a jàngal mooy ca jaxfar ak buur ba bi jaxfar ñëwé tok ci biti na assalamu alayka yow diw bour bi laj ko ne ko yow jaxfar lu tax mu man buur do man bour président sangam ak sangam mu ne ko parce que jaasi mo la fal ak arme mais population ñu la kon man jaxfar assalamu alayka la lay nuyo mu ne ko kon xala nga wax ma yow yow yow doomu diw ak diw ak diw mu ne ko jaafar tontat ko ne ko jigéen rek moo sañ a wax ne diw moo ma jur ndax boobu loolu moo amoon ndax ku jur jigéen gasul ndax jigéen amul woon fleur bi jigéen amee fleur ak léegi grâce à sang bi di ya rasulallah ndax boobu ñëw leen leen jox lépp mu ne ko kon xanaa nga wax ma kat boog yow buur sangam mu ne ko li la wax point asalaamu alayka yow diw falaa yem buur bi mer jël ko dugal ci kaso bi waaye ba suuf seddee yàlla téléchargé wala jox rapport ñi nga dul gis ñu ne ko doo fi nelawee yow buur tey parce que rapport bi la bi la jox sa biir bopp tey doo tëdd te nelawoo ndax am na dëgg yoo xam ne bu duggee sa nopp di nga tëdd mel ne doo nelaw mun a tijji ko ne wool ma ko mu ñëw mu ñëw mu ne nañ ko fay salaire pour mu di ko wax dëgg mu ne ko mais wax dëgg dong bu ci fay salaire dara jaru ko ci logique bobu la tëgg leen man président afrique yépp Thomas Sankara moo ci sama idole parce que je l'aime beaucoup dama ci am droit n'est-ce pas moo tax vidéo léppam laay suivre te bari na lu may recoupé ci moom laa koy jëlee parce que nit da ngay bëgg sa réew moo tax moom njiitu réew mu am na yéene liggéey mais entour bi ko wër amuñu ambition bi rawale àll rek lañ fi bàyyi. kon nag jàll nga élection yi maire ay maire transhumant dem uyu la nga ñëwaat élection député population bi wanewaat seen bopp mais njàngat la mooy delluwaat na ci sa population nga wax ak ñoom ñi dong san toll sànni ma baagi ma doxal ci kàttanu sama borom. jërëjëf masha allah waaye duma yam ak yow foofu sëriñ bi fan la kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy nar a dem ci wàllu politique ndax bari na ay leader yu nga xam ne ñi ngi lay seet ci ñii ñi ngi bëgg nga fekk si leen ñi ngi bëgg nga ber euh, sa yoonu bopp yan tontu nga ci mën a indi. xam nga wax déggin lay laaj te mooy ñaata laa lay wax cin bu ñorul kenn du ko dan ma ne la togg rek té waxoon ko ay xala ca gannaaw ban daan football fi ci terrain bi man leen dama daan def buma juggé jugee caare yéen leket gi def ci four bi dem tour geej ñaan ma boy bi day yak rek man leen ma ngi ji rek bés dina ñew may bay ngeen na kañ ko fi ci yow waye tayit fa lañ tollu te moy politique man bima gëm moy fexé ba gañ xol yi te man ci bobu lay liggéey mu sama terrain politique moy gañ xol yi dama maa ngi togg ci lolu bis bu ñoré da nga xam fan la jëm sànni ma baagi ma doxal. mu ngok kon nak internet yi ñuy suivre li ñu wara wax day jéxul waye waxtu wa jéxna sëriñ bi nga tàggoog askan yu ba benen bak tay sargal Mawlaaya a cheikh Seydil Mouhamadul Moustapha di ñaan yalla suma borom ku mu am yalla na raw wa ma salika ala laahi hasib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sante sama mbokk bopp bi kenn gol bu sëriñ Moustapha waaw. Ah. ndax daf ma wax wax bu doy waar moom kenn bëggul mu ne man dama defe ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ Moustapha moo tax ñuy seet jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ci sa xadara mu ni ma te tiitar ma yàlla moo ma boole ak yow mu ni ma te kenn mënu ci dara nag lu mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp ma bëgg ngeen bàyyil ma fi kenn bëggul xamul ci lu mu nekkit ngeen may ma man ma xam ci lu mu nekk waaw ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul walla bu koy def nag day fekk yëguma ko